salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu mbokk yi éditeurs yi éditrices yi ñuy seetaan fii ci Kéwoulo TV yi nekk ci Sénégal ak si bitim réew amante nañu mbégte ak kontaante di jàkkaarlook yéen ci suñu émission bi nga xam ne moom lañu naan démb ak tey démb ak tey na boo ko déggee mooy ku xamul sa démb doo mën a xam sa tey si on ne sait pas d'où on vient on ne peut pas connaître l'ouest qu'on ñu am tey lu indi di noonu leen ko dégtal tey nu ñëw ci fii nga xamante ne mooy Caaroy Azur seet si leen ki nga xamante ne benn kilifa gu mag la kilifa goo xamante ne wax dëgg yàlla bu ñu leen ko waxee di ngeen ko xam ndaxte fu ñu waxee kilifa diine ak kilifa aada dafa am lu muy signifier fii nga xam ne mooy Sénégal c'est pas que nit ki ay kilifa kii diine ñoo fi nekk avant kilifa aada avant kilifa yi nga xam ne ñooy ñitum réew mi nekk fi dafa am lu ñu doon wax ay kilifa aada kilifa aada bokk na si ñi nga xam ne mooy jogomaay bokk na si ñi nga xam ne ñooy farba bokk na ci ki nga xam ne mooy ay ay lingeer bokk na si ñi nga xamante ne ñooy ay jaraaf bokk na ci ñi nga xamante ne ñooy ay grand sëriñ bokk na ci ñi nga xam ne ñooy ay roi buur siin buur jolof bokk na si ñi ba ba ci Casamance te région bu nekk dañ ko compartimenté woon organiser ko donc laata tubaab di indi état fekkoon ñun ñu ñu ñun ñi ñu amoon suñuy état ak suñuy province yoo xam ne suñuy aada ak suñu cosaan kenn ku ci nekk dafa amoon loo xam ne moom nga fa doon tekki yàlla nag defoon ay doomu aadama yoo xam ne dañ leen a jëloon pourtant nag mi ngi am ba léegi mi ngi am ba léegi ñu ngi koy utiliser ba léegi ñu ngi koy def ba léegi ndaxte boo demee fi nga xamante ne moo di bawal ak kajoor ak jolof kenn ku ci nekk da nga daan am ay ndomb tànk yoo xam ne ñoo fa doon nekk tey jii ñëw nag tey mbégte ak kontante bu mag boo xam ne tey dañuy ñëw fii ci Caaroy Azur ana kan la ñuy seet si El Hadj Malick kan mooy El Hadj Malick Guèye ah kii nag mooy le grand jogamaay de Louga ki nga xam ne moom la ñu intronisé bu yàggul dara le 3 novembre 2023 à Njàmbur Louga El Hadj Malick Guèye ah c'est un intellectuel nag hors pair boo xam ne hors statut de jogomaay bi c'est un intellectuel fa gars yi jàng it toogul woon rek les bras croisés c'est un intellectuel il a fait l'étranger jàng na waaye nag bëgg cosaanam ak bëgg culture ak bëgg afrique am et puis panafricaniste boo xam ne hors pair la international moo tax mu bàyyi loolu yëpp teg ko fee ëlbatiku ne nag li nga xam ne mooy sama cosaan ak sama aada mooy lu ma amoon a am moom ma ko gën a cher te nit la ba nga xam ne ki tient vraiment à ses mooy El Hadj Malick moom lañ ñëwoon seet si ni tey mu ñëw fekk ko këram mu dalal ñu dal bu baax jàkkaarloog soxnaam ak famem ak yëpp macha allah tubaarkàlla macha allah ñu koy ñaanal yàgg fi te wér El Hadj Malick maa ngi lay nuyu. jërëjëf Gueye euh, kontaan naa trop ci euh, honneur bi ngeen ma jox ñëw fii ci sama kër Thiaroye Azur euh, seet si ma maa ngi leen di gërëm yéen waa kewlu di leen di nuyu di nuyu kilifa yi waa Kéwoulo yëpp ak euh, liggéeykat yëpp ak seen téléspectateurs yi ci réew mi ak ci bitim réew euh, bismillah kon bu ñu la doon laaj euh, ana kan mooy El Hadj Malick lan nga ñu tegal suñu. waaw El Hadj Malick man gonek Louga laa Njàmbur Njàmbur dëkk Njàmbur jànge fa. école primaire euh, secondaire ba lycée ma def ko fii ci lycée Limamou Laye alors euh, dem à l'étranger euh, jàng def des études de mathématiques appliquées sciences sociale ak marketing management à l'université Paul Valéry Montpellier waaw léegi ñëw dellu si waat Sénégal. ubbi entreprise euh, di liggéey dans le commerce et euh, la distribution en général quoi. d'accord kon El Hadj loolu mooy la présentation ana mooy El Hadj Malick Gueye li nga xam ne lu yëngu lu ne am na lu ko yëngal ah keroog di ñu gis le trente novembre 2023 ñu organiser xew-xew bu mag feete njàmbur bàyyi ñëpp ñëw ba ci yow ñu ne la ah El Hadj Malick yow de ndomba tànk bii mag bii ñu naan jogamaay ndax ku nekk yàgg nga dégg Youssou Ndour di way mbar géej ak jogomaay jogomaay jooju ñu may muy ndooma tànk boo xam ne tey bu ñu doon wax Louga tey bu ñu ne benn ne jaraaf xam nañ ci teg jogomaay lan moo tax ñu ne jogomaay de Louga. waaw euh, c'est vrai le 30 novembre 2023 euh, lañ ma intronisé jogomaay muy euh, titre boo xamee ni bu ma bu la bu honoré sama famille ndax. Euh, Ndiambour euh, le dernier Diogomaay di Ndiambour il s'appelle Galaye Gueye Galaye Gueye la tudd Galaye Gueye Gueye Galaye moomu moo jur Alioune Gueye Alioune Gueye jur sama baay mayor Gueye même temps Galaye Gueye moomu moo jur Ndumbenaar Ndumbenaar jur sama yaay Mbacco Cissé donc man héritier direct la ci Galaye Gueye moomu bon euh, boo gisee nag titre boobu maanaam ñu accepté ko avec beaucoup de euh, euh, beaucoup beaucoup de fierté mooy d'abord dañ ko moom mais aussi dafa dafa jot nag euh, africains yi di penser par eux-mêmes wër naa àdduna bi yëpp li ma gis mooy que ni ñëpp ñi ngi ci seen ànd africain kese moo wàcc àndam te ku wàcc sa ànd ànd boo dem fekk ca ànd borom fekk ca borom donc euh, moo tax ma bëgg ko ma accepté ko mais nag am ci beneen vision nekkul rek benn titre boo xamee ni honorifique boo xamee ni da nga koy yor rek alors euh, di ko di di ci di ci profito man dama bëgg li nga xamee ni sunu maam yi nañ daan toogee ba daawuñu importer dara pour lekk daawuñu ni dara daawuñu yalwaan daawuñu def dara te kenn musu leen a yab loolee suñ maam yi taxawe woon je crois que loolu la war a indiwaat pour africain yi siggiwaat pour la renaissance africaine waaw waaw alaaji Malick li nga wax rafet na wax dëgg yàlla tiitu bi yan bi diis na yàlla na sa jàppale la ba wax dëgg yàlla mu woyof lool ndaxte cër la bu nga xamante ne wax dëgg yàlla ah dañ koy doon par cosaan mhm. nekkul ne damaa jekki-jekki fële rek war nañ ma far Diomaye comme ni ñu fale élection ñëpp nekk candidat demawul noonu lii dañ koy donn cay maam waaye nag donn gi dafa am ay critères yoo xamante ne xam naa ne teg nañ ko ci ndax critères yooyu mën nga ñu si ñëwal tuuti waaw critères yi d'abord mooy mën ko yor xam lan mooy lan lay jariñ lan la sunu maam yi doon def lan lañ doon jariñ seen société bon euh, bi nu ko wootee sunu famille daaniki concurrence bariwul woon parce que comme africain yi ñun binduñu suñu histoire ñu ci bari sax xamuñu lan mooy jogomaay hmm. ci biir famille bi Galaye Gueye bàyyi na euh, plus de mille descendants ndaxte moom euh, amoon na moom ci boppam rek amoon na fukki taaw euh, donc bari woon na ay descendants Euh, bari na descendant ñoo xamee ni ngéyeen yu bokk ci kii léeg-léeg nga taseeg nit ci fii ci ci ci ci ci ci ndakaaru bu ngeen waxtaanee ndekete ci descendant ma Galaye Gueye moomu la euh, waaye ñi ko soxla sax ñi mu intéressé parce que jàpp nañ ne ñun euh, bàyyi nañ suñu aada bàyyi nañu suñu culture jariñatul dara mais man dama gëm ne bu nu delluwaatul suñu culture du ñu dem fenn ñëpp li Cheikh Anta Diop daan wax naan nit mënula la ci fondement jàmbur ñun africains yi li nu tardeel mooy dañuy essayer di bâtir ci fondement ci fondation jàmbur man bi ma defee tour du monde presque def naa Asie def naa Amérique def naa Europe li ma constaté ci l'homme noir mooy que ni ñun dañu bàyyi suñuy culture par rapport ak ñi ci des donc li nga xamee ni moom moo war a nekk moom moo mën a nekk pour que ñu développer mooy dellu si ci suñuy fondamentaux pour développer loolu tax euh, bi nu ko bi nu defee réunion bi alors man ma nekk euh, candidat pour jël jogamaay jooju ñu dekkalaat ko euh, ci njàmbur. jërëjëf El Hadj Malick dama lay ñëwaat foofu sax ci li nga wax ne dama wax wax bu am importance hmm. nga ne. ñëpp dañu bàyyi woon seen culture ñu pourtant occidentaux yi nga xamante ne defe nañu ñoom ñoo développé pourtant particulièrement ci nga xam ne moo di France ba léegi ñoom bàyyiwuñu seen culture mm. parce que tey les bretons mm. ñi ngi wax ne bretons yi ñii lañu mm. ñii ñooy gaulois yi te pourtant ba léegi li nga xam ne mooy roi ma ngi fay am ndax boo demee tey ji fu mel ne Monaco tey ji dafa am roi am reine te pourtant ñu c'est des gens très civilisés te ñi ngi biir France te pourtant dañ leen a nangul cër boobu ba pare ñoom ñu ñëw en Afrique bëgguñu civilisé boo demee Chine ñu ngi jàpp ci seen Bouddha boo demee ci Inde ñu ngi seen Taj Mahal boo demee ci États-Unis ñu ngi ak seen ay Amérindiens ah tey jii nga ñëw Afrique Égypte roon trône bi fanaan nekk ba léegi boo demee biir Égypte ñu ngi koy respecté famille bi ñu nga fa famille famille famille famille yi nga xam ne ñoom ñoo yoroon par exemple euh, culture bi ak monastère yeeg yooyu yëpp ñu ngi ba tey foofu Afrique tamit boo fi duggee tey ji boo demee fu mel ne Ghana culture bi kenn mënu leen tere ak seen culture Nigéria moom waxatuñ ko ñoom moom seen dara mënul tax seen racine. Mm. mais ñu gis ne Sénégal dafa toll benn jamono bi nga xamante ne dañu xaw a euh, négliger laa ko mën a tuddee wala mel ni lu fàtte fàttalu ñi nga xam ne mooy jogomaan yi ak jaraaf yeeg grand sëriñ de Dakar yeeg farba yi ak laman yi ak ñi nga xam ne ñooy bumi yi ak ñi nga xam ne ñuy buur yi nga xamante ne ñu ngi leen fu mel maa ngi nuyuwaale le roi Soumboulou Mbaye bi nga xamante ne moo nekk aussi bu baax a baax a baax mais jogomaay bu fekkoon dañ daan dem ci delluwaat tuuti ci ginnaaw jogomaay bu dëkk bi demaan ba mu toll fenn rôle jogomaay lan la en principe par rapport ak ñi xam ne ñooy kilifa aada yi fi nekkoon. rôle jogomaay euh, dafa yàgg parce que jogomaay ñoom ñoo nga soqi ko sax ci Égypte c'était les mathématiciens xëy na loolu tax sax ma def mathématique. merci alors euh, ñoom ñoom ñoo daan gérer. tool yi nga xamee ni par bu crue masaana am le Nil débordé xam nga kenn dootul xamee say tool tool day far mais il fallait des mathématiques pour que bu bu décrue amee alors léegi ñu dikkaat daane fii la affaire fii la kii yamoon fii la toolu kii yamoon fii la toolu kii yamoon loolu mooy la l'origine n'est-ce pas des mathématiques de la géométrie alors jogomaay jooju euh, ñëw na ba Euh, dans le fleuve Sénégal ci ci ci ci ci ci ci ci fleuve Sénégal fii alors euh, xam nga Séné euh, africains yi sénégalais yi les Sérères Wolof il y a il y a 1500 ans ils la dans l'Adrar mauritanien. alors bi ñuy bi ñuy bi ñuy ñëw nag ba ci fleuve bi jogomaa yi ñoom ñoo daan ndox mi. di di séddale tool yi di wax fi kii nii maanaam kuy napp li li droit yeeg réglementation. genre juriste la ñu woon quoi jurisprudence léegi nag bi nu ñëwee nag ba ci ba ci euh, dans le nord dans dans l'intérieur même du Sénégal yàlla jogomaay euh, Missiré Issa Dieye kooku kooku kooku ñëpp xam na ko Missiré keroog maa ngi lay wax ne Missiré mooy Ramsès ndax hiéroglyphe dañ koy lire de ba temps de de et de droite à gauche léegi nag gis nga li ma la doon expliquer raa bi mooy yàlla waaye raa bi moom la ñuy teg ci kanam pour ormal yàlla euh, pour ormal tur bi léegi euh, tubaab yi bi ñu yegsee gis raa bi ci kanam ñu ni ñu ni ñu ñu ni ñu ni mesiré ñu daan ne ah loolu buñ ko waxee ñu ni ah, ah, africain la donc na ñu juutal affaire bi daal def Ramsès waaye bi ñu yegsee ci Amon Ra dañ ne Amon Ra raa boobu moo dikk ci Camara moo dikk ci Jatara Watara Masiré yooyu yëpp loolu raa la mais léegi njàmbur dafa nekkoon benn dafa nekk benn benn philosophie bu spécifique xam nga njàmbur moom moo jëkk a nekk province bi nga xamee ni euh, li ñuy wax leen noon alignés comme ay Suisse kii ay yooyu euh, njàmbur dafa amoon autonomie boppam. ñoom dañu amoon seen autonomie bopp am seen philosophie mooy ay jàmbur lañ. ay jàmbur nitu jàmbur. ni maanaam euh, nit ku euh, boo gisee par exemple njàmbur ça veut dire le pays la province la région des hommes intègres les njàmbur. njàmbur ñoom ay jàmbur lañ. xam nga boo gisee sax tur boobu moom moo dikk ci wolof boo boo. nekkee nit ku. nit ku intègre ñu ni jàmm jàmm kii de jàmbur la kii ab jàmbur la kii ab jàmbur la ah, kii ab jàmbur la xam nga mooy nit ku intègre donc euh, burkinabé yi dañu dañu kii rek mais njàmbur njàmbur moom mooy euh, le pays des hommes intègres bon jogomaay bi ñu yegsee foofu gisatuñu fleuve gisatuñu dara mais terewul ñoom ñoo doon gérer teen yi par exemple fii am na teen ah fii am na mar nañ nañ leen gasal teen alors ñu organiser wu jogamaay bi fexe ba wut les fonds les les kii ñu gas foofu teen euh, daan seddale aussi tool yi mais aussi teg ci un rôle de euh, de justicier maanaam de un rôle de euh, de kii quoi maanaam euh, su nekkente ne par exemple benn conflit am na. genre kat yi lañ daan joué. waaw waaw waaw kat yi sax plus tard. mais xaali waaw mais ñoom. bu bu bu conflit amee ñoom ñooy dajale le jury le jury daan ne dëkk sàngam kat diwa nga fa sëñ Guèye nga fa ab jàmbur la na ñëw dëkk sàngam diwa nga fa na ñëw dëkk sàngam diwa nga fa na ñëw ñu dikk tasi ci pénc mi ñu àtte waaw. loolu ja euh, jogamaay daanaka def. jogamaay daana ko ci mission am la bokkoon ci mission am la bokkoon. Euh, mais aussi. di veiller à ce que la sentence soit appliquée maanaam tey ji yow bu ñu la daanee benn bëy alors danañu veiller à ce que Masamba mii kat yorel na diw bëy nag ko jox bu bu nekkente ne joxu joxuñu ko ko ba dat ba amee ba dat ba ñëwee alors dañuy dellu si at ci jogamaay bi mu fexe ñu jox ko ko mais nit ñi amoon nañ ngor goo xamee ni dañu sàmmoon kàddu Mhm. lu dañu sàmmoon kàddu. te ay ceddoo fi nekkoon. waaw ay ceddoo ñoo fi nekkoon ceddo nag mooy sunu identité mooy identité bi nga xamee ni mooy moom la ñu war a valoriser ci kanamu xale yi parce que euh, arabe bi bi mu ñëwee. dafa def li ñuy wax l'épistémicide maanaam euh, l'épistémicide maanaam suñuy valeur yëpp dañ leen a rey. maanaam léegi tey jii euh, euh, bo niñ daan niñ daan fajee niñ daan sangoo euh, niñ daan defee ay kii ñun loolu bidaa la lépp cosaan mu lépp luy cosaan mu ni bidaa la alors sunuy suñuy juste et coutume yëpp ñun yooyu baaxul parfois sax ñu dem a dem ba ni la sa tur sax baaxul mbay ñu ni Babacar ngaa la ñu ni ñu ni Omar ay yooyu mel ne ay Babacar ak Omar nekkuñu woon avant l'islam Euh, tubaab bi ñëw aussi dàbbaliwaat épistémicide boobu. dégg nga sunu diine yi ñu ni sorcellerie la bon euh, sunu sunu lu ñu am rek ñu daal ne li baaxul sunu langue yi làkk yi ñu ni bon lii c'est des c'est des c'est des dialectes euh, xam nga alors que Cheikh Anta Diop traduire na la théorie de la relativité d'Albert Einstein. Mhm. ci wolof te tubaab mënul loolu français mënul loolu. français mënul def loolu ci te boo boolewu ci anglais. te ñu gis ne en Égypte am nañu ay langage yoo xam ne yu bëri la nañ ko ak olof. waaw mais égyptiens yi wolof euh, yi ci Égypte lañ jóge wolof yi ñoom ñoo nekkoon pharaon yi ñoo nekkoon yonent ya dégg nga ñoom ñoom ñoo ñëw ci immigration bi ba Égypte tase alors ñoom ñoo ñëw daal di ñëw nag peupler. Euh, le reste de la est-ce que mën nga ma waxal quelques baat yoo xam ne ci euh, Égypte la ñu nekk te nekkaat ci baat mi ñu koy wax ci wolof. waaw xam nga euh, kem li nga xamee ni moom moo gën a siiw mooy kem tubaab yi sax ñooy wax kam mais xëm la ñuy wax. xëm mooy ñuul. Mm. Égypte mi ngi tuddoon Kemtiu maanaam le pays de noirs. des waaw donc noir mooy ñuul boo gisee par exemple Séti. moom mooy jigéen bon boo nee seeti xam mooy jigéen bu ñuul mooy euh, seet seet seet bu ñuul mooy jigéen bu ñuul donc euh, boo nee bàmmeel ñoom bameer lañ ko wax bameer dégg nga euh, yooyu bari na ay mots yoo xamee ni vraiment ci ci ci ci ci ci Égypte yoo xamee ni kii même ci wàññi bi sax ci juróom la ñuy yem dégg ci juróom la ñuy yem comme ñun benn ñaar ñett ñeent juróom ñoom it juróom lañu yem. ñoom it dañu naan benn ñaar ñett ñeent ba juróom waaw ba juróom foofu la ñu yem ci seen i calcul. jërëjëf waaw jërëjëf mais El Hadj dama doon laaj si seen diggante ak euh, euh, jaraaf yi farba yi ak te nekk ci yeneen province yi nga xam ne nekkuñu biir Njàmbur kese. Hmm. par exemple mën naa la wax ne la jaraaf de Louga ak tey jii ñu ne Buur Siin walla ñu ne Laman bi nekk euh, Laman bi nekk Ndànd. Hmm. wala ñu ne bi nga xam ne moo nekk sa Sine Saalum mm. est-ce que amun war waru leen am benn relation boo xamante ne bu dëkk tolloo fenn yéen ñëpp ngeen def genre lu mel ne assemblée générale assemblée nationale boo xam ne kuréel lay doon wax état da koy reconnaître ngeen nekk benn genre cercle boo xamante ne war ngeen mës di toog di traité problème mu dëkk bi ci aada ak cosaan te du bokk ak mbirum gouvernement dara. xam nga loolu sax na moo doon wax naa la ko léegi moo doon rôle lu njàmbur Njàmbur zone tempon la woon boo xamee ni tout le monde s'y retrouvé maanaam Njàmbur euh, dafa doon regroupé ay philosophes ay nit de valeur ay jàmbur ñoo xam ne des des in des hommes intègres tey ji bu ñu daan far buur Jolof wala ñuy far euh, Dameel di Kayoor tey ji daanañ woo le jogomaay wala le jaraaf ñu dikk bokk ci jurie bi fal parce que ñoom ay jàmbur lañ xam nga Euh, euh, tey jii par exemple boo seetee euh, tey jii mën naa laa nettali comme ñu ngi ci année ci ci ci ci ci mois des femmes ma ma dëjee ko sama sama jigéen bi maanaam place bi gën a rëy ci ci ci ci Louga ñu ngi ko tuddee place Yacine Boubou. Yacine Boubou Yacine Boubou au centre de Louga. mooy nekk ci ñaar diggante ñaari marché yi. ci wetu terrain basket bi foofu moom mooy place Yacine Boubou mais kan moo doon Yacine Boubou. waaw Yacine Boubou euh, benn njàmbur njàmbur la woon benn jigéen boo xamee ni euh, moo doon soxna euh, Major Fatim Ngole. Major Fatim Ngole. alors Major Fatim Ngole xam nga ñun suñu diine yi dañ daan seet avec seet boo xamee ni nag bokkut ak ñii nga xamee ni actuellement. Euh, ñoom ñooy seet aka di kii ñi moom vraiment mën nañoo tudde ñu ci bari ay charlatan lañ mais ñooñu dañu amoon ay nit ñu am valeur ñoo xamee ni dañ daan seet ne ko ne Madior Fatim Ngole ñu ni ko boo bëggee sa reñ bii ngay reñee nekk reñ bu paisible ay yooyu euh, euh, am na ñaan buñ lay defal ak càngat yuñ lay defal waaye nag càngat bi daal dafa ànd ak deretu garmi day ànd dereetu deretu garmi deretu garmi waaw ah, biñ ko waxee loolu mu dem eh, gisi soxnaam daal ne aaw bi ah man ka dama am càngat boo xamee ni day ànd ak deretu garmi aaw bi ne ko ah sëñ Maajoor man de bëgg naa lool waaye nag njariñ loo fekk mu dem ci ñaareel bi ñaareel bi ne ko ah sëñ bi man de bëgg naa lool lool waaye njariñ loo fekk mu dem ci ñetteel bi mu wax ko lool euh, mais maajo euh, kii euh, Yaasin boobu doon jabaram ju ndaw ñëw yoreex doom ju ndaw maanaam di ko nàmpal mu ñeewantu ko wax proposition boobu daal di dem ci ay sëram ñu ni ko ah ñun de mënuñu lool waaye nag yow euh, man ngaa kii daal sa jabar ju ndaw ji wax ko ko ba xam rek mu hésité hésité dem ci dem ci dem ci li nga dem ci yaasin buubu daal di koy wax daan ne ko ah man de dama am càngat goo xamee ni daal dafa am euh, deretu gërmi mu ni ko mbaa waxoo ko kenn mu ne ko ah wax naa ko say wujjeeg samay sœur de mu ni boo ko boo boo leen ko waxul woon de kenn du ko yëg kon mooy gor dégg nga daan ko nag sama doom ji daal laa bëgg bu ko dara metti sama gannaaw ñu daal di préparer pour sacrifier ko nee ñu fajar ga nga xamee ni da nga ma moom lañ ko war a fàcc sacrifier moo moo moo moo moo moo yee ne ko jóg leen heure bi waxtu wi jot nee na avant muy dem maanaam dafa dafa jox doom ji daa raxas ween mi jox ko doom ji doom ji fi mu jug daal di bañ mu daal di dem ñu sacrifié ko waaye euh, euh, Biram Yaasin buubu moomu Euh, maanaam euh, ba ba moom moo mujj falu moom moo mujj hérité trône bi Biren Yaasin Buubu 1600 1664 ba 1681 17 ans de règne xaddamul kenn contesté wu ko amul guerre amul dara 17 ans de règne boo xamee ni. moom moo mujj doon buur bi moom moo bi. 17 ans de règne boo xamee ni amul amul benn benn benn coow ci ci ci ci ci Kajoor ñëpp nekk ci jàmm moo tax ñu ngi koy woy fu ne waaye Yaasin boobu sax moo gën a siiw sax euh, buur buur euh, Biram Yaasin boobu dégg nga waaye euh, gis nga Youssou Ndour di wax eh, Birima foo yendu ñu yendu fa yendu naan tellement y la paix amul woon guerre amul woon dara donc genre sacrifice yooyu njàmbur maanaam euh, dañuy damay dégg sax ñu naan bon d'ailleurs sax c'est une vérité euh, takk jigéen jàmbur euh, jafe na trop ay 2 millions ngay gaañ dañ koy wax ay 2 millions ay 3 millions 4 millions la laaj ay can. dem na fa ñëpp daw. pour uti fa jigéen pour uti fa jigéen fa jiw ba. waaw ah, loolu moom moo indi nag dégg nga jigéenu njàmbur moom. seer dafa seer trop. waaw waaw ah, dafa seer ndax da ngay liggéey ba sonn. waaw jërëjëf jërëjëf jërëjëf <laughs> jërëjëf jërëjëf. kon daal mission wu. jogomaay hmm. tey ji ak chef coutumier hmm. wax dëgg yàlla kenn dootu ko ràññee mais tey jii El Hadj bu fekkoon ne tey da nga doon xool ñii nga xam ne ñooy nitu état lan nga doon xaar si ñoom seen diggante ak yow en tant que jogamaay voilà nitu état ñoom euh, xam nga tubaab bi bi mu ñëwee ak arabe bi euh, daf ñoo dénudé de notre rôle maanaam dafa euh, chef coutumier yi ñëpp daf leen a dénuder de leur rôle maa ngi lay fàttali ne Galaye Gueye moomu nga xamee ni moom mooy dernier jogamaay di Njàmbur alors euh, euh, bi ñu yegsee euh, dafa mujj sax quand il était devenu incontournable dafa mujj dëkk ak tubaab bi di yore yore karom que leen ñuy wax karo benn genre voiture la boo xam ne ñaari fas lay dawal mm-hmm. alors Euh, am na suma maam boo xamee ni ndumbe ndumbe géey daana wax naan baayam daana jël euh, ab dund di ko def ci karo bi di dem ci village yi di séddale dégg nga rôle boobu euh, tubaab bi bi mu dikkee ak arab yi dañu ko dañu ñu écarte dégg nga nag daal di jël nag sëriñ si daal di teg suñ kaw favoriser leen mhm. voilà maanaam sëriñ du chef coutumier chef religieux la et puis chef religieux sax c'est c'est trop dire euh, loolu sax indil nañu beaucoup de problème parce que tey jii euh, lu mel ne Espagne mi ngi introduire benn euh, requête boo xamee ni au niveau de de Schengen au niveau de l'Union européenne naan léegi passeport diplomatique Sénégal yi bu ko bu ko benn pays européen nangootul tellement y petit de y a tellement de jeunes marabouts yoo xamee ni dañoo am ay passeport diplomatique c'est devenu ridicule quoi alors politiciens yi ñoom lu ñu jàpp mooy ku nu mënul a manipuler ku nu mënul euh, utiliser euh, du ñu def ak yow ñun nag man personnellement dama bëggoon ñu dellu siwaat ce rôle là mais dans la dignité mais bañ a nekk ay figurants yoo xamee ni euh, mais nekk des anti pouvoir yoo xamee ni de des des pas contre-pouvoir pas contre le pouvoir mais des contre-pouvoirs de balance yoo xamee ni ils sont toujours du côté du peuple waaw nga tey ji par exemple boo gisee wax yu gën a ñàkk solo yi nga xamee ni wax nañ ko fële ca AIBD ca comment dirais ca centre Abdou Diouf ba keroog euh, ci conférence ci euh, Macky Sall mais ñooñu ay chef religieux ñu ni wax ay soi-disant chef religieux wala euh, wala chef coutumier ñoo ko fa wax jàngu bi sax moo fa moo fa moo fa tane li mu wax parce que ñooñu dañu yem ci chef religieux xam nga dañu yem ci chef religieux ci ci ci autorité religieuse ñii nag dañu bëgg a jël autorité religieuse et coutumier mais autorité coutumière dafa war a am euh, une particularité une singularité boo xamee ni day taxaw nekk un contre pouvoir boo xamee ni euh, il est toujours du côté du peuple quelle que soit la situation nekk koo xamee ni nag Euh, kuy liggéey la kuy kuy kuy kuy kuy kuy kuy xeexal boppam la ah nekk un acteur économique à part bu rôlu chef coutumier ñëwee mu def ko mais pas nekk di dundee état loolu ku ko def tamit euh, yëfi yëfi ñàkk solo rek ngay def doo jariñ dara sa peuple ñun nag man personnellement sama jogamaaya bi dama ñëw pour proposer une alternative à ces pratiques-là. waaw man bëgguma dara ci état xaaruma dara ci état mais je suis toujours du côté du peuple. waaw jërëjëf loolu nga wax nii ni am na solo loolu du côté du peuple ma defoon ne tey jii euh, en tant que jogomaay de Louga de la région de Louga tey logiquement su fekkoon na tey dañu doxal li nga xam ne mooy orthodoxie yow tey ki nga xamante ne tey c'est le gouverneur de la région de Louga ak ki nga xam ne mooy le préfet de la région de Louga. ak le maire de la région de Louga ñett ñooñu ñëpp kenn ku ci nekk tey yow yaa waroon ki nga xam ne mooy waroon doon le premier conseiller de ces trois personnes euh, personnalité la ci wàllu aada ak cosaan est-ce que yow seen relation normalement war na mën a demee comme ni ma la ko expliqué nii wala déet. waaw xam nga euh, ñooñu euh, compréhension bi doxagut parce que waneegunu loo xamee ni une alternative la par rapport ak li xew. Euh, li xew mooy lan mooy nommer un chef coutumier boo xamee ni boo bëggee meubler sa salle rek président bu bëggee meubler sa saalam am daal di koy yónnee benn invitation mu ñëw bu ko joxee parole mu tagg président euh, gouverneur bu bëggee meubler saalam ñëw bu ko joxee parole mu tagg ko alors kooku boobu boo man boobu boobu créneau man dugguma ci waaw boobu créneau dugguma ci mais nag je propose que ñu gën a fay daal li nga xamee ni moo fi nekkoon démb parce que que démb bi nga xamee ni ñun ñoo sunu maam yi ñoo ko yoroon importé wunu euh, ceeb importé wun dugub importé wun carotte importé wun dara demuñu Russie di ñaani di di ñaani engrais ñe demuñu Russie di ñaani di ñaani di ñaani les gens vivaient à l'aise aussi waaw les gens vivaient à l'aise il y avait l'autosuffisance alimentaire dégg nga donc cette dignité là boobu bu nu ko bëggee restaurer il faut ñu jaar ci nit ñoo xamee ni dañu diñ parce que doomu aadama mënula am loo xamee ni yàlla du la may li nga bëgg yàlla da lay may li nga mérité yàlla li nga mérité la la may donc il nous faut des euh, ces valeurs là ñu restaurer ko sunu xale yi xam ko am une dignité et yàlla nag may ñu nag li ñu tollool parce que yàlla moom étage ba nga nekk rek fa la lay fekk waa Jogomaay wax nga lu lu lu rëy wax daal dignitaire dafa war a digne. Mhm. Euh, role bi nga xam ne moom ngeen di aussi ci état dafa war a nekk benn rôle boo xamante ne tey aada ak cosaan parce que yéen normalement da ngeen war a nekk ci nga xam ne état bu ne bërit yéen a war a jóg ne ko eh mun naa ne ko du nii. jare la nga bàyyi lépp tey ci sa Jogomaay c' est parce que si vous nous dites que vous tenez vraiment ñu danañ ci gis am nañ tamit lu koy confirmer mhm. mais ba tax na yow. sa yenn mbokk yi nga xamante ne ay chef coutumier lañu tey yi est-ce que soxlawul ngeen def benn genre kuréel fu mel ni assemblée ñu ngi ko gouvernement bi jeex naa ah. hmm. bii di ñëw tey hmm. mu def benn genre kuréel congrès pourquoi pas jogomaa yi ak ñi nga xam ne ñooy jaraaf yi ñu recensé ba mu am une représentativité au niveau de l'émissaire de l'Assemblée nationale bu boobaa nag ngeen mën a taxaw di àq ak yelleef yi nga xamante ne ñun suñu ñun ñoo ko moom suñu bopp ngeen mën taxaw di ko fa kaar waaw ma tontu sa question dama bëggoon a rebondir tuuti ci euh, dénigrement bi nga xamee ni moom la ñu arab bi def tubaab bi def na ko ñun tamit ñu koy répéter de manière inconsciente xam nga ci sa euh, ci sa wax da nga ne ceddo amul woon diine amul woon euh, kii waaye amoon nañ ngor nangam nangam mais ceddo amoon na diine ñun dañoo amoon suñuy diine des diine africain mais léegi li ma la doon wax épistémicide bi moo tax diine boobu arab bi bi mu dikkee daan ne lii bidaa la tubaab bi daan ne nu lii sorcellerie la mais diine la diine la comme diine yi nga xamee ni indien yi dañu am diine boo yeggee am na ñoo xamee ni nag la ñuy jaamu boo yeggee am na ñoo xamee ni janax la ñuy jaamu boo yeggee am nañ seen i buda am nañ seen i statue am nañ seen i seen i seen i dees xam nga boo déggee gis nga gis Taj Mahal nga gis yooyu yëpp mais loolu indien yi ils y tiennent tellement que boo dikkee les les religions monothéistes là dañ leen di fermer la porte xam nga parce que ñoom seen spécificité boobu bëgguñu mu yàqu xam nga ñun nag euh, on a laissé à tort ou à raison euh, ñu ñu defal ñu suñu épistémicité boobu ba ñun ci suñu bopp sax dañuy saboter suñu ceddo gi ceddo amoon na diine parce que et puis diine yàlla yàlla benn yàlla sax la ñu amoon dégg nga yàlla yàlla gis nga eh, yàlla na ma yàlla may nangam amul ci benn lakk ah déedéet amul ci benn làkk arab sax day wax allahuma nangam yàlla jox nangam yàlla jox nangam mais yàlla na ma yàlla may nangam loolu amul ci benn lakk ci ci ci ci wolof la am ci ci ci mandengo ci ci saraxule ay yooyu donc ñun yàlla amoon nañ ko jë unique parce que ñun dañu dañu pratiquer diine cinq mille ans avant Jésus-Christ avant n'importe quel xeet ñun amoon xamoon nañu yàlla ceddo yi amoon nañu yàlla amoon nañu luñ gëm dégg nga mais pour dénigrer loolu euh, euh, doomu Yaasin buubu jooju régné na pendant 17 ans guerre amul benn conflit amul ku bëgg a naan sax da ngay dem da dem kër Birima ku bëgg a naan naan maanaam naan pas naan sangara mais dañuy wax ne boo bëggee rëcc maanaam daw ba naan loolu boo gisee jeu xale yi dañ naan daw damaa naan yi damaa naan yi maanaam daw naa ba rëcc mhm. xam nga boo rëccee mooy naani xam nga naani na mhm. loolu mooy rëcc nga ça dir dire que kooku ku duggoon ci royaume rëcci nga donc ñooñu dañu doon gérer de manière Euh, de manière de manière pacifique hein sobre et vertueux n'est-ce pas seeni seeni cité mais dañu ñu gëmloo ni le dénigrement subliminal mooy que ni yéen du ngeen woon dara seen maam yi dañ doon reyante seen kii nangam nangam mais bu ñu doon reyante du ñu juróonte ba yegg fii bon pour répondre un peu ci sa question bi loolu nag moo war a am une assemblée du discernement un conseil de discernement. parce que euh, Botswana mooy pays bi nga xamee ni moo gën a développé ci Afrique mooy euh, euh, pays bi nga xamee ni parmi les plus développés les plus structurés de l'Afrique du du, du monde Botswana. Botswana dañ fa fal benn président bu ñuy wax Kama Kama issu de la lignée royale comme par exemple ñu faloon rek tey jii benn sëtu Lat Joor kama Angleterre lañ ko jëlee ne ko kaay ñu fal la moom déjà moom euh, jabaram sax métis la jabaram sax tubaab la alors mu mu mu mu muy hésité bi mu ñëwee ak jabar tubaab yi dégg nga alors euh, ñu ne ko dañ la dañ la bëgg fal président mais yàlla may ko xel pour mu accepter pour que population yi accepter mu dugg ci àll bi dugg ci chef tribu yi dugg ci chef coutumier yi mu waxtaan ak ñoom bi mu waxtaanee ak ñoom euh, ba jël nguur gi dafa def benn genre sénat mm-hmm. conseil de discernement conseil de discernement daal di jël chef coutumier yëpp mu dugal leen fa ñu am nag benn pouvoir boo xamee ni extraordinaire lu ñu lu assemblée voté bu nu ci dóoree seen vote du dem gaa ñi dikk daa ni comme suñ pays africain yi rek tubaab yi dikk danañ wa voilà yéen amu leen xam-xam bon léegi lii danañ leen defal nii danañ leen defal la bon vous vous de 10 pour cent nous nous prenons les 90 pour cent mu yegg ci conseil de discernement ñooñu ne ko ñett fii daal ku mënul cinquante pour cent cinquante pour cent demal sa yi daan ne yii pays bi du développé européens yëpp manko embargo leen ñu delluwaat ci seen ci seen seen ci seen càmm ga seeni kii quelque temps après seen jamaa beeg affaire yi gars yi dooruñu dellu si ah sud africains yi ñëw ah sud africain yi ñeneen ñëw ñeneen ñëw ñeneen ñëw cinquante pour cent c'est le minimum de des des ressources actuellement nii gis nga ni Qatar di def. Mhm. noonu la Botswana di def. di importer. gis nga maanaam non am nañu autosuffisance alimentaire mais mais seen doom yi boo juddoo yow juróo sa doom rek après li des moom sa yoon newu ci. yére tenue fourniture lépp ñoom ñoo ko res bu jàngee. ba yegg benn niveau bi ñu ne ko ban école nga bëgg a jàngee bon euh, Cambridge ngi nii euh, defal ko listu école yi nga xamee ni université yi gën ci États-Unis université yi gën ci Angleterre mu choisir ñu yóbbu ko fayal ko mu dikk ñu jox ko liggéey je crois que exemple bu rafet nga noonu exemple la mais loolu nit ku am dignité moo ko mën mais ku nga xamee ni da nga yegg si au pouvoir par accident wala par des magouilles par des kii lu ne mën nga ko accepter mais nit ka nga xamee ni par exemple dafa am dignité parce que man dama dama euh, maanaam jogomaa yi euh, dafa am suma benn xaritu papa Ibrahima Sayer Gueye fu mu ñu masaan a gis rek loo nekk-nekk xale sant Gueye eh jogamaay loolu la daan wax da daan wax ca kaw jogamaay après ma ne benn bis ma ni sama baay waaw lan mooy jogomaay mu door maa expliquer mais xam nga tey jii sunu maam jooju galaay gay moom sunu ayel boobu bu defoon lu ñaaw ci jogomaay ja mais kenn dootu ko nettali mais sunu politiciens yi bu nekkoon te ne seen i action da leen di topp ba seen i sët danañ seet li ñuy def dëgg la donc c' est important ñu dellu siwaat ci situation boobu yow daal la jogomaay c' pour vraiment la préservation des valeurs traditionnelles du pays exact de l' Afrique de, euh, de manière générale parce que bâtir sur nos fondements. bâtir sur nos loolu rafet na loolu rafet na loolu rafet na lool El Hadj Malick kon tey su fekkee ne tey politique bi nga xam ne moom la jogomaay yi waroon a def ci nga xam ne mooy ci état dafa waroon jouer rôle contrepoids rôle lu mel ne Sénat. Mhm. wala rôle fu mel ne congrès aux États-Unis mhm. nga xam ne balaa ñuy doxal dara dañu war a dem pourtant loolu ba léegi. Mhm. am na ci yenn dëkk yoo xamante ne tey balaa ñu doon def dara. dañu war a ñëw parce que tey day gis naa ne dakaar hmm. comme li nga wax sunu grand sëriñ yi wax dëgg yàlla meuble lañ leen def. meuble rek grand sëriñ yi moom meuble lañ leen def. Hmm. Euh, buur yi nga xam ne tamit ñoo fi war a nekk ndax fu mel ne Kajoor wala Bawol wala bu ci nekk état bi daal dafa ne ñoom ñoo nekk ci kawam te ñoom ñoo war a nekk ci kaw état. parce que ñoom état fi leen fekk. Hmm. état tubaab yi ñoo ko fi indi mais ñoom province yi nga xam ne moom lañ doon jël di ko gérer. ci ay jikko ci ay aada ak cosaan li nga xam ne moo rafet ba léegi léegi yow tu penses que euh, lan la ñu mënoon def tey politique boo xamante ne comme nguur gi jeex na ba yii di ñëw nga xamante ne di ngeen am benn concertation boo xam yéen ñi nga xam ne yéen nitu aada yi ak nitu cosaan yi nga xam ne yéen cosaan ak aada yéen a ñu war ba ñun ñu dellu si suñuy valeur ancestrale yi nga xam ne moom lañ sunu maam yi bàyyi woon ba delluwaat seen cër boobu. xam nga. Euh, comme euh, Botswana boobu ma la joxoon exemple Iran noonu la def Turquie temps yi ci gannaaw dégg nga ñuy ñuy euh, année année année lañ jël année année lëmm daal di daal di daal di koy tuddee ki année année année byzantine xam nga année lëmm lañ jël daal année byzantine dégg nga turki iranien yi am nañu diini 100 pour cent l'islam lañ daanaka wala 99 pour cent d'islam mais am nañ seen jour de l'année xam nga boo xamee ni dañuy célébrer euh, seen i seen i seen i seen i seen i per euh, seen i état seen i spécificité perse xam nga euh, ñun tamit loolu il faut que ñun ñi nga xamee ni ñun la yàlla def ñuy sëtu ñooñu nga xamee ni ñoom ñoo ñoom ñoo ngànkoon réew mi alors war nañu am un conseil boo xamee ni dañuy def de propagandes parce que euh, nit bu gëmul boppam du dem fenn te gëm sa bopp boobu am na lu koy stand sous-tendre maanaam xam sa bopp parce que il faut une logique pour que le subconscient adhère ci li ngay ci ci ci ci li ngay ci ci ci li ngay def euh, il faut que ñu am benn conseil boo xamee ni Euh, lu mel ne fédération waaw lu mel ne fédération des chefs coutumiers. waaw fédération des chefs coutumiers wala wala conseil des chefs coutumiers wala yooyu demee noonu. xam nga léegi par exemple ku lu mel ne am na télé yoo xamee ni dañuy dañu lay won fii benn euh, benn film un dénigrement arabo-musulman boo xamee ni dañ lay won yonent yàlla Souleymane fils de Daouda Daouda éthiopien noir Souleymane éthiopien noir. Euh, grand-père de Ménélik II noir grand-père de Haïlé Sélassié Rastafari noir arabe yi di la ko woon def ko def ko arabe ba pare nag jël ay nit ñu ñuul def leen ay esclave lépp luy tuutal nit ku ñuul ñu lànk daan état bi lii bu mu fi tegee dégg nga euh, lu mel ne euh, maanaam dessin animé yi ñu wooyi dégg nga Union européenne Union européenne ñoom ñoo liggéey di di xalaat nan la ñuy def ba ba ba ba dofloo africain yi dégg nga daal di daal di créer kiriku <laughs> kiriku lañ créer dégg nga jël sunu sunu vedette yi nag ay Youssou Ndour ay Koffi yi ñoom ñëpp ñuy woy ci kiriku ñuy saboté africain yi kiriku du ñu sol sax tubéy dégg nga loolu bu doon bu doon te am nañ un conseil de discernement danañ xam ne lii sabotage la dañuy lànk daal ne lii bu mu tegee ci suñu télévision yi alors que doo gis euh, japonais yi ay manga la ñuy def ñu ñuy seen seen doom yi di di di seetaan ay ay ay manga yoo xam ne ay drone lañu dawal di di di informatique di di les nouvelles technologies xam nga loolu il nous faut benn conseil de discernement boo xamee ne propagande lay def gis nga propagande moom la égyptiens yi def égyptiens yi xam nañ ne scientifique yi sérieux yëpp nee nañ pharaon yi ay nit ñu ñuul lañu woon yonent yi ay nit ñu ñuul lañu woon waaye Al-Sisi lu mu def. dafa dafa dafa dafa organiser benn kii euh, taafantaloo par exemple day day day day day dafa defar benn euh, musée de euh, de des momies boo xamee ni jël jël statue xeesal jël kii yëpp wàññi seen bakkan yi daal di daal daal di leen di yóbbu ba pare nag daal di décréter daan ne l'égyptologie aux égyptiens maanaam jël arab yi gën a bon Euh, ay al alzawi ñooñu euh, di leen falsifier loolu l'histoire bi xam nga bu ñu gisee nit ku ñuul ñoo xam ne kii mënuñu ko mënuñu ko weexal ñu toj bakkan bi wala wala ñu détruire euh, statut boobu daal di daal di kii di falsifier l'histoire pour arabe pour pour pour pour gën a yëkkati arabe yi xam nga loolu conseil yu mel noonu il nous faut des gences une structure pour pour veiller à ça xam nga sunu sunu télévision yoo xamee ni dégg nga boo boo taalee télé Sénégal yi boo duggee Sénégal lu mat mille lu mat kenn xamul mille série dénigrant ay ay ay ay waaraatekat yoo xamee nii presque dégg nga ma gaa ñi ay niveau BFM dong la ñuy am wala niveau cm <laughs> ah, en arabe dégg nga dëkk di wax li ñuy wax dara lañ ci xamul di tagg arabe yi di tagg di tagg maami jàmbur yi loolu bu nu amoon un conseil de discernement un conseil boo xamee ni danañ wax ne nii lañ ko limité nañu yam ci jàngale alxuraan nañu yam ci jàngale diini te bañ a nettali ay ay ay ay ay ay maami jàmbur te bàyyi suñuy maam. dégg nga lay daana léegi yow bu fekk ne da ngay euh, conseiller li nga xam ne mooy la jeunesse parce que gis nañu ne tubaab yi fi pour dellu si ci nga wax nii dafa am benn euh, lavage de cerveau boo xam ne dañu koy def di ko defal suñuy doom yi. Mm. léegi à travers les téléfilms yi nga xam ne dañu koy seraan dafa mel ne dañu perte nos de traditionnelles dañ koy jaarale foofu te fi ñu gën a gaaw mooy ñu attaquer la jeunesse. suñu doom yi nga xam ne tey ñoo fi ne pour ñu bàyyi loon complètement seen culture ba tax na dañuy balancer ay séries Nollywood dama koy wax Nollywood mm-hmm. ak yenn séries yoo xam ne ça n'a rien à ak suñuy valeur ancestrale mm-hmm. yow léegi jeunesse yooyu xale yooyu di toog chaque jour di seetaan film yooyu mel noonu yow El Hadj en tant que euh, jogomaay lan nga leen di digal sa doom yooyu waa li ma leen di daal mooy comme li nit ci waxoon un peuple qui manque une volonté de puissance va directement au déclin là où il n'y a pas de volonté de puissance on va directement vers le déclin maanaam doomu aadama bu boo boo wanewul sa bopp wane sa grandeur un peuple bu wanewul dooleem wane grandeur am ah wane ni fii laa jëm ci ci ci ñaay bi la jëm euh, donc xale yi nañ leen dimbali parce que euh, occidentaux yi arabes yi dañuy ourdir de des des plans ah pour nous dénigrer pour après noot ñu léegi nag ñun tamit waruñoo toog fii rek yàcc rek di wax di di di di di di commenter li xew dañu war a ñun tamit ourdir des plans pour les contrer loolu mooy volonté de puissance sans volonté de puissance on va directement vers le déclin. waaw li ñu jagle woon ci waxtu daanaka mi ngi jëm ana sa kàddu gu mujj. mais euh, di leen gërëm waa lu vraiment. yenn euh, euh, organisme de journaliste d'investigation dëgg ngeen ndaxte vraiment jogomaay ji euh, ba ma ko defee ban banu ma ko falee yàggul 30 novembre dernier la mais def ngeen tout pour découvrir nu ñu jox ñu suñu xalaat ma kontaan ci loolu di leen di gërëm di gërëm monsieur Touré Babacar di ko ñaanal yàlla lii muy def nii yàlla na ko ci yàlla may ndam. amiin jërë jëf jërë ngeen jëf. Euh, kon euh, mbokk internet di livre bi ngeen gis El Hadj Malick yor ko moom moo ko bind muy la religion des Af les Africains. devraient éprouver pour dominer pour dominer le monde entier. mu bind benn livre boo xam ne daf ci daf ci inspiré wu ci ay ay ay loo xamante ne suñuy valeur ancestrale la yoo xam ne suñu maam yi ñoo ko fi bàyyoon mu bind ko alors ñu bëri di ko jàng di ko koy moo moo tax sunu mbokk internet yi ñu leen wan livre bi nii. sunu mbokk internet yu ñu doon suivre ci Kéwoulo TV li ñu jagaloon ci waxtu tey ji jeex na lu neex du doy kay xanaa dañ koy dog ba beneen yoon mu di seen émission démb ak tey ki leen ko doon présenté muy Thierno Birahim Gueye alias Gueye Para dépp koo xamante ne yaa ngi ñuy déglu te xam ne cosaan ak aada da la ñor boo ñu jegeñee fi nga xam ne mooy Kéwoulo TV incha allah foo mën a nekk dinañ def comme ni ñu defal El Hadj Malick Gueye ndax kat ñun li ñu ñor mooy cosaan ak aada ak def loo xamante ne bu ñu ko defee suñu xale yi ak suñu doom yi dinañ téye suñu culture ak suñu aada ndax li ñuy soloo ak li ñuy defee ak li ñuy doxoo ak li ñuy comporté woo bokkul ak dara ak li nga xam ne moom la fi mag ñi bàyyi woon te nit mën nga civilisé nit personne civilisée nekkul ne da ngay sangu ba solu di solo ko sol yu rafet loolu mooy si civilisation mooy ki nga xamante ne li nga xam ne mooy cosaanam ak aadam da ko téye bu mu dëgër këcc ba kenn mënu ko ko yël la tubaab bi xam mu xam ko ba pare xam loo xamante ne téye na ko te tubaab bi amu ko kon lii moo ñu defal ñu dugg si bismillahi rahmaani rahim génn caabi di gërëm nga xam ne mooy El Hadj Babacar Touré suñu caméraman yi ak caw mi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk ni nga xam ne suñu jigéen bi baax nga xam ñoo nekkoon duñu ci ak techniciens yi nga xam ne tey ji boo ñoo toog di ko xool ñu seetaan ba muy rafet ci ñoom di gërëm waa Sénégal di ñaan ci réew mi nga xam ne mooy Sénégal ñi ngi jëm ci fii nga xam ne moo di élection yii di présidentielle yàlla mi am jàmm yàlla nañu defal jàmm loolu jàmm jàmm ko gën asalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu